kan mooy sa xarit ñu di ko wax rek xariti jaspara bi ankay xariti jaspara baa ngoog ñenn ñi abal nañ sax seeni nit passeport ñu dugal ci ko fi te bañ fi duggee eh, ay di mbuuru ak boobu tamit samay tippu ñi di leen jow te yëguñu ko am na xarit yoo xam ne dañoo jàpp ni seeni xarit ñu di leen sotti lu mel ni xame te fekk ñu ñu def nañ ñoom lu rafet ñu di leen jow ñu jàppaleen xarit yu bari ñoo tas kër yi tey xarit yu bari ñoo tas sax liggéeyukaay yi ngeen bokk sax ngeen koy wooye suñu liggéeykaay ci ay nit xarit yu bari tey ñoo tax ba seeni xarit wallaahi lu nekk ñàkk nañu ko ci ñoom te boo ñàkkee rag ñu jox la gannaaw ñoo goradi am na xarit yoo xam ne xarit daf leen jaayal jaral seen bakkin bi man gis naa ko man dama ko gis parce que man dama ko am man dama am xarit boo xam ne dafa taxaw dagga santek ay nit defantek ay nit ci man kàddu biñ ma doon jox te man fekkewu ma nekkuma fa woon sax mais xarit bi dafa taxaw ba ba di ca xeex xeexi biir maa laa lay wax nii yooya xarit laa wax de man ba ba may dee samay xarit la ñuy nekk dañ fa taxaw takka bu takku ba dëgër nga gis ko ni muy xeex ba àddina yëpp di ko waxantoo moo tax ma ne leen bu ñuy wax ne xarit bu yàgg dëgg la xarit bu nekk tey tey sax war naa mën a nekk dëgg bu déggoo ci yow te déggu ci kooko am na xarit yoo xam ne fu nekk lañ demal seeni xarit fu nekk lañ ànd ak seen xarit lu nekk lañ sigil seen xarit mais dafa am xarit yoo xam ne fayuñ leen seen boor ndig dañ or waaw te ku ci or lu rey na dëwal gisuloo ko rek nga xam ne mooy loolu am na xarit yoo xam ne dañ lay bëggee koo bëggee la suuf bu yeboo ñu ne la yow caga nga dinañ la bëgg bu yeboo ñu ne la góor jigéen nga dinañ la bëgg bu yeboo ñu ne la lesbienne nga dinañ la bëgg te fi ñuy fanaan di nga fa fanaan li ñuy lekk dinañ ko lekk amul ñu ci yow benn rusluwaay yooyooy xarit yi pire yi mooy xarit comme li ñu sundu doon waaye rek sa naxar dafa war a nekk naxaram sa bànneex nekk bànneexam am na xarit yoo xam ne boo bànneexoo rek la ñuy dem ak yow mais reppal ba nga am na duñ la jege tey duñ la jege ëllëg te boo amee fitna ñi lay jege mbaa nga feebar ñi lay jege mbaa di la bàyyi xel ñoo ñooy sa xarit ma am xarit yoo xam ne ba tey dañuy daaw res bari na am na xarit yoo xam ne dañuy woo sëriñ yi ba Afrique moo tax ma ne leen bi dañoo garaaw man duma fi wax benn xarit boo xam ne dafa nekk Afrique xariti diaspora bi laay wax am na xaritu diaspora xam ne laa yi garaaw yi ñu ngi ci diaspora bi te li ëpp yëpp fii lañu ñu dajee bokkuñu ndey bokkuñu bàyyi ñenn ñi sax su ma ne xarit ba tey maa ngi koy leeralaat ay mbokki jëkkër bokk nañ ay mbokki jabar bokk nañ ay ñi nga xam ne xarit yaa ma neex yi bokk nañ dox dajee xarit bi tamit mu ngi ca dem liggéey nga am fa sa xarit ba tey mu nga ca mais ci sañ biir askan bi la am na xarit yoo xam ne laa la wax de dinañ la sosal ba sosal fu dara nekkul te yow doo ci yëg dara doo ci xam dara te saa yoo jógee nga foog na say xarit lañ am na xarit yoo xam ne dañoo am ñaari xel laa lay waxal ne si seen xarit ci seen góor te wóor na la wóor yàlla ne wallahi al azim seeni xarit teguñ sax seen góor ñi xel nga toog waxal seen seen waxal seen xarit sa xarit yooyu lu salte lu ñaaw ba àddina di ko dégg yooyu ñooy xarit yu bon yi te am na xarit yoo xam ne dañ koy def am na xarit yoo xam ne ni ñu toogee fii ci diaspora bi wallahi al azim ak mbokk yoo xam ne niñ fi toogee seeni xarit seeni waay ñoo tax ñu toog fi ñoo tax ñu toog fi tey toog bu rafet mais tey ñooñu ñoo nekk seen noonu waaw tey xarit yooyu ñoo nekk seen noonu am na xarit yoo xam ne dañ ko bañ ba dëkkoo woon leen sax mais lépp lu fanaan ci sa biir kër gi ñu di ko wooyee sutura ñoo ko yébaane ci biti ndik rek bëgg sa ñaaw teef e eh lan kan mooy sa xarit waaye samay dipose sa xarit mooy ki nga xam ne ee eh, ñu ne la sa bëñ weex na eh ankay balam doon weex dafa xonqoon waaye ñu ne la sa doomu ndey moo tax ba yow sa bëñ weex ndig moo la ko wax ba tax nga xam ni ñuy soccoo ak ni ngay bë eh, soccee sa bëñ ba tax bëñ yi weex kon kooku sa doomu ndey la ñu di ko wooyee xarit ba tay et eh, li ci xarit mooy am na xarit yoo xam ne laa wax de dañuy yàkkamtee dégg yow sa tifaan ñu jël téléphone ba te lépp loo xam ne yow daf lay métti balaa àddina di ko wax yooya xarit ñoo lay gën ñoo lay njëkk a am na xarit yoo xam ne boo photo woo sax dugal ko waxuma la nga photo woo ak sa jëkkër de waxuma la sax nga photo woo sa góor nii de mbaa vidéo de mais dafa am xarit yoo xam ne dugalal rek sa photo bu ndaw nii rek bañ xelmeti la fekk ñu ngi la teg but ci kaw yow jëkkër ji la nopp mbaa ci kaw yow jabar ji nga xam ne macha allah. te lii yëpp ci xarit ak mbokk la am nag ndik añaan mu am xarit yoo xam ne dañuy rawante ñenn ñi rawante nañ ci biir diaspora bi ñenn ñi ñuy dem rawante Afrique mais ba tey xolub iñaan ku ko xarit bu ko ci am rek wallahi azim moom la ñuy deeyaale ndig dañuy bëgg di soxor ci seeni xarit saa yu nekk nag saa yu nekk te léegi dañ ko boole ak liggéeyante gi ma wax leen ci yenn kër yu bari mu ngi na xaritaa yi mais du ci dara nag ci xarit yi la ñu ngi koy boolee ay xalimba ay liggéey ndig soxor lii yëpp ci sa waay kanay sa waay sa waay mooy sa xarit sa mbokki jëkkër mooy sa xarit mu am ñoo xam ne fii may waxe jéen ñu bari dunda nañu ko dañ leen boole boole laay wax nii xëy na nga xamoon ni kii kii la kii kële la nga dem ba indi relationship boole la mais tey ñooñu ñooy doon sa noon tey ñooñu ñooy doon sa ennemi waaye li ci xarit mooy li tam man la neex samay xarit li dañ indi part 1 rek parce que bëggu ñu vidéo bi gàttam te xarit numéro 2 dina ñu te li képp ko xam ya ngi dund li nga xam moy kèn moy sa xarit bëgg na ngeen woti mba ngeen bayyi voice ngeen wax ma la nay xarit ngeen wax ma seen dund dund ci xarit bu boobaa ñu ñoy di yekkale parce que part part 1 rek lañ defagul ni rek sa xarit de mais xolal leneen li ci xarit yëpp dina ñu amna xarit yo xam ndaysan ndeysaan lay xasee rek lañuy bëgg a di xaqataay naan ñaw te buñ paree oola ah billaay warutoon di demee nii yow kay nii yow kay ne la yee ëpp na ba tey xaritu ngis tal la ndég bu ñu weetoo yow rek def loo rafet mais boo leen nekkee ci mbooloo ñu def ak yow lu sew am na xarit yoo xam ne dañoo añaan añaana añaan añaana añaan añaana añaan ba nga xam ne wallahi maa leen ko waatal dañoo soxor añaan ba bëgg a dee du ñu fàttaliku démb lépp luñ la defaloon rek bëgg nañ mu kasaara te fu ñu toog di ko wax wax naa leen ni jëkkër sax buñ la buñ la ko buñ la ko joxoon sax buñu la ko joxoon sax bu ñu paree jëkkër jooju dañ koy bëgg a tas mbaa jabar jooju dañ koy bëgg a tas toujours ñu ngi seet naka la ñuy feccee ci koo gàcce nit am na ñoo xam ne dañuy ànd suba ànd ngoon ànd guddi ànd ba ci ankay boo leen defee dara together bu ñuy pare dem leen ci bitik sax laa leen mën a wax nga sàcc mu sàcc nga seen ndax yow sa sàcc du feeñ xaritu soxor yaa ngóog ankay yéen a ko defa defandoor de mais yow la sa bos bi di feeñ yu soxor yaa ngóog wax naa leen nag lii nga xam ne moom la ñuy ooyee xarit te ñu war koo moytu bu baax a baax du ma ne xarit amul ba tey non daa am am na xarit yoo xam ne sakanul nag ten percent la foo deyee ñu deyee fa am na xarit yoo xam ne saa yu leen seen jëkkër yi dóoree ndeysaan ñu yëkkati téléphone. joy ci sen benen nopi xarit ba bëggu di koku joy la len ba bëggu di ñu ngi tek téléphone bi bara bor de set ma paté dina xamné sa jëkkër dóor na la ma demba dina xamné sa jëkkër dóor na la da ngay jékki-jékki rek genn ci biir askan bi ñepp di la xoole ne ii déggoon naan ki ndikiti li la ko jëkkër ji def ndikiti li ndikiti lii sa xarit mo nekk ci ron billahi yena a soxor bàjju ni ngeen mel no ñun buñ ko naré mel waaye yal nañu yàlla aras yóbbu ñu mu jeex ta parce que bakar kenn mënu koo dund mu am xarit yoo xam ne dañoo siis nag pour wax la dëgg ankay dañoo siis diw bi ñuy diwoo sax boo leen ko laajoon ñu wax la leneen te boo koy diwoo mel ni asib loolu am na ci xarit am na xarit yoo xam ne dañ lay bëgg a bëgg boo xam ne bu bëggale la sa yaay bi la jur ba mel ni ñoom ñooy taawi néeg ba waaye boo paree or leen yéen a soxor te bon boo leen paree di wane ne yéen yéen a ku ne mu am xarit yoo xam ne yéey ëpp na maa leen ko wax am na xarit yoo xam ne xariti ànd ndoor rek la xariti yaa ma neex boo leen waree ànd dem ci bitig démb wax naa ko ñoo lay jiitu ca bitig ya def li ñuy def ba pare naan la ah waa léegi maa ngi fii ngeen tase te du la yóbbu ca bitig boobu noonu yóbbu la ci bitig yu bon mbaa mu def ak loolu bon mu am xarit yoo xam ne nag seen xol yi ñoo set lu nekk def nañ ko lu nekk def nañ ko ci ci ci lu rafet rek pour seen ànd rafet mu am ñoo xam ne dañoo dem ba mel ni sax dañoo ragal seeni xarit su fekkee du ragal dañ leen bëgg bëgg leen te miin leen te bëgg seen jàmm moo tax waaye xarit li ci ëpp yëpp dafay ori yéen may dégg wax naa leen ni am na kaabu fi dox nii noo dafa ëpp xale bu jigéen bi dañ ko doon ut si ngoroga coroon fala waaja yi fala fala xarit ba jo ba mu xamee ni kii daf koy ut fa la ko ronoon waaw dem ca kooku naan ko kii cagal kii day mbaraan kii day njaalo kii day lii ba xale bu góor bi dellu ginnaaw ba dem takki keneen loolu yëpp nga di ko wooyee ni kii sa waay la te lépp lu kooku xamoon teg na ko ci ci noppaam yi déggale ko ko mu am ñoo xarit yoo xam ne saa yu seen sëy yi tasee billaahi seeni xarit dañ koy bëggee fuñ toog nga dégg waaw daf ko sonn sonnaloon dafa tàyyi dafa lii ay ëpp na ba tey buñ ñaxarit ñu ngi laal mbokki jëkkër yi ba tey ak mbokki jabar yi de parce que ñoom ñu bari ay orkat lañ ba tey ñu ngi ko naan xarit waaw mooy sa waay anke loolu rafet nga leen di defal laa wax bu ñu demee ba jiitu or la mbaa bu ñu demee ba placé wu or la mbaa bu ñu demee ba yëgante keneen or la lii moo fi xew nag samay dëkkuus ma ñëw rek di leen bàyyi ne 40 minutes lañ koy def muy kan mooy sa xarit part one part two nag dina ñëw maa ngi leen di bàyyi nag part two bi yéen ay gën a eggali parce que lii ma wax ci xarit yëpp man dund naa keneen dund na keneen dund na ko keneen dund na ko soo ñu ñëw boole yëpp di ko wooyee sa waay kan mooy sa xarit ñu di ko wax rek xariti diaspora bi ankay xariti diaspora baa ngoog ñenn ñi abal nañu sax seeni ni passeport ñu dugal ci ko fii te bañ fi duggee ee eh, ay di mbuuru sarax ak boobu tamit samay tipo ah bu ñu demee ba avancé ba toog rek yore seen ne léegi ñu ngi liggéey rek mbaa xëj na sax boo leen abalul passeport bu ñu ñëwee nga yore leen bañ liggéey mbaa ba placé wu ee eh, ñu jël la def la sa noonu mu am ñoo xam ne sax ñoom bu xarit ba ñëwee rek ñoom fu nekk ne xolub iñaan leen ba ngeen xam ne fa la ñuy yem et lii laa amoon lu ma leen di indil tey ci xare ñi koy ñëw nag di sent ak yeneen yaa ngi ñëw sanse gi nag ges laa sol ne rek ñawal ko sama bopp di ko may nag samay tippuus yëpp love you nag so much